te nag ñu seet si koo xam ne euh, Serigne Ndiaye lañ koy wax waaye ku ku xam Modou xam ko ak Serigne Ndiaye ku xam Modou xam ko ak préparateur musique bu bëri affaire waaw njaxlaf lool waaw bëgg Modou lool waa saay bu Modou Lo amee combat bu desee trois mois ba 4 ba 5 dootul am jàmm. waaw kooku nag la ñu la ñu jàkkaarlool tey ñëw bëgg waxtaan ak moom ndax xam ngeen ne actualité tey li mu li mu joxe mooy Modou Lo bi déposé certificat médical am fi nga xam ne moom mooy si CNG ñu bëgg si waxtaan ñu ngi lay nuyu bu bu baax a baax sëriñ. waaw Abou Ndour ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi dañuy sant suñu ñaari waajur di sant internautes les arènes yëpp. Mhm. di ñaanal site bi yàlla na nekk télé. Mhm. mooy. Mhm. voilà tey dii dañoo ñëw waxtaan Serigne Ndiaye fan la ne gëj koo gis lool Serigne Ndiaye ci cëla la ne ak sa ak fa fan la nekk Serigne. waaw aw Ndour boo gisee sax ma raaroon ci sit yeeg ci làmb ji yëpp. du dara ñun lépp lu ñu am rek ginnaaw yàlla làmb moo ñu ko may. mais boo gisee ñu raar ci làmb léegi daf salte xasante bi bëri na werante bi bëri na ci mhm. waxante lu bon bëri na ci torop mhm. te ñi kay def ñëpp suñuy kilifa lañ ci biir làmb mhm. xam nga bëgguma sax toog fii di cité tur mais ñi koy def ñëpp ci làmb lañ nekk làmb de leen teral ku ci nekk bu dee benn fan sax làmb teral na la hmm. mais daal làmb ji léegi dafa salte trop. trop trop sax. looloo waral sëriñ nga jël écart tuuti. ñu lay gis rarement di la dégg presque ki sax ki du la dégg. lii nii kenn xamul kan kañ nga gëj kañ nga gëj a téye micro di wax gis biñ la gis sax bëreetul kon loo looloo ko waral sëriñ. mënuma bàyyi làmb. Hmm. ñun ni ñu mel ci àdduna làmb moo ñu ko def. Hmm. bu ñu amee tour tey jii ba ñëpp xam ñu bu ñëpp xamee wala ñëpp respecté ñu làmb tax. Hmm. tey jii booy ñëw ci milieu boo xa ne bi bëri na waxante lu ñaaw li bëri na. te nga am njaboot. day laaj nga toog waaw. toog mm-hmm. tubaab dafa ne il faut reculer pour mieux sauter. exactement waaw. Mm. Mm-hmm. wu ma kenn nag. waaw sànniwu ma kenn xeer. waaw ku ci nga xam ne da nga gis ni dama lay offensé wala dama la ci wax wax wax ji da yaa ko moom rek. Mm-hmm. baal ma àq mais waxuma ak kenn. allah làmb ñun ñoo ko bokk. ñun ñëpp a ko bokk. ku ci nekk amateur bi dagg billet bi supporter bi ñëpp ci lañ bokk. mais na gën a rafet. ñaaw na trop surtout. weer bi ñu jógee décembre bi ak janvier bi janvier billaahi d'accord su ma dégg ni lii làmb jaru ko sax xasante mm-hmm. bi waxante lu ñaaw yi mm-hmm. jaru ko quoi ñun mm-hmm. ñëpp la tey jii su ma waxee lu ñaaw su ma la waxee lu ñaaw sama bopp laa ko wax su la keneen waxee lu ñaaw boppam la ko wax waaw ah, ñu gis ne Modou Lo bi nga xam ne mooy seen mbër di seen xarit di seen àndandoo waroon fee bëre yàlla dogal mu mu blessé blessure Modou Lo Serigne Ndiaye naka ngeen ko dundee yéen yéen ñu ko jege metti na trop di préparer benn combat ba mu des vingt cinq jours. mu blessé. metti woon trop. mais ak njàmbaaram. barke alxuraan dafa bëggoon bëri ci. mais ñun teg loxo. gaa yëpp ci teg loxo. mais bu doon moom ak moom rek day bëri ci. day bëri ci waaw ak blessure bi quoi. ak blessure bi. Mhm. ngeen dem ba ba jëmmi jamono blessure bi certificat de guéridon bi mu ngi fii. nekku fi mu ngi fi waaye daal yéex ba déposé certificat médical bi lan lan moo koy indi. Ah, mais xam nga tey jii boo blessé. nga demoon ci ay kër docteur. ñu saytu sa wérgu yaram. ñu ne la il faut nga toog benn quarante cinq jours. doo def dara. te xam nga blessure bi ci épaule la woon. du woon. ci tànk du woon dara xam nga épaule après dañ koy mobiliser waaw mën ngay daw di footing boo toogee benn temps vingt jours mhm. un mois mu xaw a dëgër mën ngay footing noonu di daw mais mhm. doo def dara lu diis mhm. doo yëkkati doo def dara day metti bu ñu toogee après mu blessé am nañ lu ñu metti parce que tey jii ñun deux mille dix neuf bi ñu bëreeg Eumeu Sène ba léegi bëre waaw te làmb ji Modou Lo da ci am place. da ci am mm-hmm. Mm-hmm. sañoon day bëre suba suba suba bu doon suba suba suba moom pare na pour bëre. Mm-hmm. waaw mais. waaw. boo demee kër docteur ñu bindal la kayit. nga demaat fa ñu xoolaat la bindal la kayit. xam nga blessure après dafa am réducation rééducation mun nga ko topp benn un mois tamit. wala benn quarante cinq jours tamit. si pour foofu noonu. fi nga blessé woon day faible après. boo deful rééducation bu jaar yoon rek. waaw mën nga ci blessé waat. merci beaucoup Modou bi nga xamoon laataa muy muy muy am ndog-ndog boobu blessure ak Modou bi nga gis mu déposé certificat de guerre doom démb physiquement ndax ndax am na lu changé ci Modou Lo. non Alioune ah, Ndour Modou dara du changé moom Modou athlète la. Hmm. athlète dara du changé moom. Hmm. dafay liggéey. Hmm. day liggéey. bu amee combat. day jox combat bi àqam. ba mu jeex tàkk. yàlla rek mooy ñëw nag des fois mu ñàkk ko. des fois yàlla ànd ak moom. Mhm. combat bu mu ñàkk sax boobu la gën a liggéey. boobu la mhm. merci mais Modou bi ñu xamoon dañoo gis Modou bu soppeeku Serigne Ndiaye euh, nekk Modou Lo oustaz wala imam yar sikkim bi soo waxee mu ne la yàlla di kii te loolu ak làmb tamit ndax loolu ak ak làmb ànd na. Hmm, loolu ak làmb bañ a ànd. ànd na mais du am dara lu mu gàllankoor ci sa liggéey est-ce que am na yu bëri peut yu mu daan nangu démb ak barki démb tey moo doo dootu ko nangu jàppoo loolu wala. non non. non non wàññiwul dara. lamb mhm. yow sëriñ bi ngay dem pour mu ñaanal la lan lay def. Hmm. ci lan lay ñaan ñenn ñi ci alxuraan la ñuy ñaan. ñenn ñi ñenn ñi la ñuy liggéey. waaw ñenn ñi ci sunguf la ñuy liggéey. waaw kon jàng alxuraan da ko war surtout muy jullit. ñenn ñi ci seytaane carrément. la ñuy liggéey waaw ñenn mais jàng alxuraan. da ko war jullit la. Mhm. ndax jàpp nga ne yenn yenn seytaane yi du maanaam euh, téere yi nga xam ne walla sa euh, saafara yi nga xam ne si si ci boor yi saytaane la gën a féete jàpp nga ne Modou Lo léegi dina ko nangooti def. non ko nangoo utiliser. <coughs> Modou amul lu muy bañ atlet la rek. Mm-hmm. la moom lu mu laaj. Mm. ñu war ko def dinañ ko def incha allah. Ah, fa nga daan dem barki dem dem ak barki dem di fa dugg. di fa tey laa fa gën a mën a dem. te nga ko gën a mën a ah. def. en en conformité avec Modou jàpp nga ne Modou dina ko nangu moom. incha allahu incha allahu. mu euh, Serigne bu buñ fa jógee ki ngeen waroon a bëreel xam ne euh, ki nga xam ne mooy Luc Luc Nicolaï teggoon seen combat mu mu loolu am après am na ay wax wax yooyu tam naka ngeen ko dundee Serigne Modou Lo gaañuwul dafa daw ama ñemewul ama loolu tam naka ngeen ko dundee loolu. metti hmm. barke alquraanu Mm, foofu il faut que ma am lu ma fay leeral gis nga bi ñu blessé mu mm-hmm. dugg ci sit bi mm. di seetaan mm-hmm. mais gis nga journaliste bi dem na pikin mm. du wax pour sànni xeer wala dara waaw jël benn booy mu toog di wax ci Modou Lo mm-hmm. booy bi wax ju mu wax saaga saaga saaga saaga man je me dis que ni booy bi deful dara ki ko jëli mu doon saaga. Hmm. mu dugal ko koo kookoo def dara. ok parce que loolu noonu envoyé naa ko sax su ma juumul am na kenn ku mu ko envoyé kenn ku yor site ma ne ko yow. Hmm. ma laaj ko ci question ne ko bu doon yow est-ce que di nga lii mu ne ma déedéet. Babacar la. Babacar Babacar Lutte TV boobu mu ngi nekk boobu nekkagul les. Leewtoo Leewtoo la nekkoon la nekkoon waaw kay la nekkoon. Equivox ok ma ne lii bu doon yow la di ko dugal mu ne ma. non non. Hmm. mu ko lii. Hmm. kii sitam bii. Hmm. bu ko nit ñu doon seetaan lii war na tax ni sax lii bu ko nit ñi seetaanee. bu amul sens dootul seetaan am benn internaute kenn du ko véhiculer saaga waaw metti na waa Pikine naan dañoo daw. dañoo def lii mais. waaw ba ci sëy nit ñi nga am dañ la jege sax. waaw dañ lay woo naan la da daw. waaw billaahi wallaahi. waaw ñun bi ñuy bëree jeeg Gris Bordeaux trois jours soixante douze heures avant le combat faar bu damm lañ am. ndeysaan. bi ñuy bëreeg Issa waaw soixante-douze heures avant la combat géej la dem di entraîner. waaw joggi ci xottu tam kubéeru potu tomate. waaw potu tomate bi lelli tànk bi yëpp. te teewul noonu la demee bëri ji yàlla may ko ndam. bi muy bëree Gris Bordeaux faar bi dañ ko annexé ci biir oto bi. Hmm? dañoo annexé woon côté. mooy deuxième combat bi wala premier bi. boobu hmm, moo Gris deux fois lañ bëri ah. deux fois bi mu koy defloo quatre quatre appuis wala. première bi la première fois bi mooy. boobu la ngeemoo ngeem vax bi. ok waaw c'est premier combat bi. premier combat ba d'accord. waaw. Mhm. kon daal loolu métti woon nag jamono jamono ji dox ba Ama it loolu daloon Modou Lo dal ko yéen bi ngeen ko déggee lu lu ngeen wax yéen. naka ngeen réagir Ama am na combat tamit mu yàqu ndax blessure am moom loolu tam naka ban jàngat. dama koy ñaanal balaa dara yàlla na ko yàlla hmm. yëkkati ko. Hmm. mu reprendre activité mhm. li ko dal dafa metti ci mhm. mbër mu ndaw. Mhm. ama ku ko ñaanalul ku ko yërëmul. doo nit. nga toog quatre ans bëri ngay préparé ba à un mois des sa combat. nga blessé. ku ko yërëmul rek. wallaahi da nga xamul coono. sport entraînement préparé combat préparation metti préparation làmb moo gën a metti sax lamb yaa ngi def ay trois séances di mm-hmm. entraîner. Mm-hmm. yaa ngi dem ci àll bi yaa ngi jóge entraînement ñu ne la suuba war nga dem def lii. Mm-hmm. préparation moo gën a metti sax. lamb man je man gisoo bu ñuy préparer combat ba jour combat. maanaam su ma leeree ni kon tey jii tey la lundi. Mm. mardi mercredi la combat bi. Mm. ma tëddee tey du su ma tëddee ci guddi gi nii. Mm. damay mel ni lu ñu ma yenoon lépp dama ko wàccee bu mu jeex. bu ma ñëwee esat da gis ni ñii xam nga ni ñii sonn nañ. mais coono bi jeex na. boo àggee esaat. ndeysaan parce que xam nga lu tax muy jeex. da mhm. naan li nga doon préparé ay weer. li mhm. jeex na ndeysaan excellent. jeex na dëgg la. Mhm. Ama dama koy ñaanal yàlla na yàlla yëkkati ko mu wéraat. jàmm ba reprendre ay activité mën na bëre. parce que champion la. yaakaaru gox la. Oh. mu toog lu yàgg bëriwul. dafa metti mu war a joxe dépense. Mhm. war di dimbali nit. Mhm. war di dimbali ñu muy àndal parce que mhm. làmb rek social la. boo ci nekkee. nga blessé tey ji sa activité yëpp taxaw. nga jëloon sa xaalis financé ci entraînement yi finance ci musique génne ay sarax. def say regroupement yaa gars yi nga nekkal ba un mois nga blessé dafa métti. dépense yu métti la. moo tax tey ji dañ koy ñaanal yàlla na wér ak jàmm. ba ñëwaat ci làmb ji. incha mbër la. Mhm. bu mu découragé bu mu ko tax a découragé. Mhm. xam ni làmb ji. Mhm. ñoom Modou Lo ñu ngi ñëw léegi bàyyi làmb. ñoom Balla Gaye li leen dese ci làmb bëreegul. bëreegul ñoom seen bëreegul Gris Bordeaux. Gris Bordeaux noonu. Bombardier Bombardier noonu. kon làmb ji tey ji ñoom ñu naan VIP dañuy dem. ana Yaxya Diop demul. ana Tyson demul. après Balla ak Modou ak seen génération dañuy dem. xale yi ñëw après ñoom Ama Baldé tamit. Hmm. dañuy dem xale yi ñëw yeneen xale ñëw. Hmm. làmb noonu la. noonu mais bu gannaaw loolu yërëm beeg ñi ñi ñëwantal beeg lépp ñu ngi dox moom la Ama moom Ama moomu la la lu Lo waaye yàlla def li li mu def ñu dégg ay promoteurs yu bëree bëri bëri yu nekk ci combat combat Modou ak Boy Niang kon dafa mel ni tey Serigne Ndiaye pare ngeen. pour pour bëri ak ak Boy Niang de. non ñun pare nañu pour mbëri yëpp. xam nga Boy Niang fa jógee ci victoire. Mm-hmm. amateurs yi ñoo soxla les grands contre petits sox mm. du ñu grand contre ñoom ñëpp ay morom lañu. waaw man dama ne ku juddu diggante quatre ba quatre vingt dix. Mm-hmm. ay morom ngeen. Mm-hmm. magante woo leen lu bëri. léegi nag quatre vingt ba deux mille ñooñu ay morom lañ magante wuñ lu bëri. grand contre petit bi ñuy wax nii. Mhm. man gëwuma ko. parce que tey jii boo xoolee Modou bi muy bëree bi mu génnee ci kalaaf. mu ngi mhm. dugg ci làmb en deux 2006. Mhm. Ama kañ la dugg ci làmb en 2007. 2008 si je ne me trompe pas 2008. benn at la ko rawee ci làmb. ñun bi ñu duggee 2006. deux ans dañoo bëre cinq combats. ci année boobu moom bi mu duggee 2008. su ma jëwumul trois ou quatre combats la boobu kon foofu xam nga ni magantewuñ lu bëri Balla Gaye mu ngi dugg ci làmb 2005 waaw Modou Lo mu ngi dugg ci làmb 2006 2006 hmm. kon xam nga ni ñoom Balla Gaye premier combat moom Dame Kandji la Balla Gaye waaw si je ne me si si Dame Fall moo ko tëggoon waaw man mii maa ngi tax maa taxawoon ci buntu bi Xaadim Fall boobu man dama doon bokk ci ko ñu ko doon jàppale dama mm-hmm. bokkoon Xaadim Fall production mm-hmm. boobu maa ci buntu bi maa doon jaay maa doon dugg boo dugg ci bunt bi mën ngay jox sa ticket. Hmm, très kon xam nga ni kon li ñu rawante bëriwul. bëriwul waaw. Hmm, hmm, at yee gaaw rek. at yee gaaw gaa yi bëgg a def gaa yi mag mais gaa yi duñ mag de. mais da ngay dégg ñu naan la Modou Lo du fi bëri ak ak Boy Niang tant que bëriwul ak ki nga xam ne mooy Ama loolu tamit loolu yéen position ban position ngeen ci am faw mu bëreeg Ama soog a bëreeg Boy Niang loolu tam. Ah, loolu nag. CNG lañ koy la ñuy bàyyi rek. ñu xool ñoom nu ñu àttee woon rek. ñu mhm. xool ñoom tamit la ñuy àttee waatee bii paa. Mhm. parce que man bi Ama bi Modou blessé Ama jël Gris Bordeaux. Mhm. billaahi am naa lu ma metti parce que dama doon souhaité Modou ak Ama. yeewi sénégalais yëpp yeewi àdduna bi. parce que dañoo ah. tënk àdduna bi. seen combat dafa tënkoon àdduna bi. dafa tënk waaw. kii ñii naan Ama mën Mm-hmm. ñii naan Modou mën. Mm-hmm. ñii naan Ama mën. Mm-hmm. ñii naan Modou mën. waaw. ma xamal la lu ndaw. waaw mooy. seen combat ku ci jéem a pronostic. di nga juum. Modou Lo da ko ragal sax da nga koy dégg ah Modou Lo dafa mbër bu jàpp ni ci senegal mbër bu jàpp ni Modou Lo ragal na la. waaw billaahi wallaahi taalaahi. kon dina tekki ngembam. Modou bu jàpp ni rek Modou Lo ragal na ko. Modou dina tekki ji ngembam. gis nga làmb ji. amul mbër muy ragal lu tolloog catu wee. chaque jour li ma koy wax rek. làmb fois il faut nga jël sa njàmbaar. ak sa ak sa fit. ko wane tàppet ba am li nga bëgg a am. dafa laaj loolu. mais Modou Lo combat bi mu daanum yëpp njàmbaaram moo ko daan. ak fitam. Hmm, hmm, hmm. Balla Gaye ñaari yoon la ko daan yëpp lan la ko daanee dëgg sa bopp. dëggalal sa bopp. Mhm. ba ci deuxième combat bu mujj bi. moo Modou bi mu àggee saako bi lan moo ko teree génn saako bi. fitam mhm. ak ñàmbaaram. Mhm. àgg naa ci saako bi damay génn saako bi ñëwaat. waaw ndax stade bi yëpp yuuxu. sama yoon nekku ci. mais des fois moom suñuy waxtaan daf ma naan ñaari góor bu ñu xas-xasloo ba ñëpp déglu leen. kon ku ci nekk boo ñëwee na nga ramp na nga def li nga war a def. mais kon daal envisagé ngeen yéen bëri ak Ama. bëri ak Boy Niang soog a bëri ak Ama lu mën a nekk la loolu. lu mën a nekk la kay. bëri ak Ama bëri ak Boy mhm. xale yi ci làmb ji yëpp sax suñuy morom bëri ak suñuy morom ñoom ñëpp. Mhm. Mhm. ñoom ñëpp suñuy morom lañ. Modou Lo mageewul Ama 10 ans de. mageewul Boy Niang 10 ans de. waaw ay un ay un la leen magee deux ans ñii sax est-ce que magee na leen un an. oui. Hmm. war na mën a bëre xale yi fi nekk yëpp. a xale yi ñu jàpp ni dafa saf. ñun combat bu saf sàpp lañ bëgg. combat bu saf bu saf sàpp parce que dañ toog lu hmm. yàgg bëre wuñ. yow boo doon choisir diggante Boy Niang ak Ama kan ngay jël. nii nii nii premier combat bu waa prochain combat Modou Lo waaw. at bi moom su ma sañu Modou Lo bëri ci. waa bëri ak kan ak ak Boy Niang wala ak Ama wala ak kan. mais Ama Baldé wérugul. Ama wérugul wax parce que ñun tamit avant am lañ yoroon. waaw mais nag fi mu nekk nii. waaw. Euh, temps tamit. waaw. ñoom tamit ñu yeewi ñu quoi. kat yeewu leen. <laughs> waa Pikine. waa waa waa Ama. <laughs> waa Pikine mooy mooy ñëw Ama. <laughs> waaw yeewu leen mooy ñu ñu ñëw bëreeg yéen. waa grand Zil ak grand euh, père Abdou quoi. waaw ak Pape saar nañ ñu yeewi quoi. Ah. waaw parce que ñoo ñu ñoo leen yeew. Euh, non ñoom ñoo ñu tënkoon quoi. ah ñoo leen tënkoon. mais bi mu nekk nii ñoom ñoo blessé mais dañ leen di ñaan yàlla wér quoi. waaw mais ñoom nañu yeewi quoi. fi mu yeewi leen. comme daal yéen daal dafa mel ni génn gu parce que nee nañ Ama Baldé seen adversaire la Boy Niang seen adversaire la keneen keneen seen adversaire la. pare nañ pour Boy Niang pare mhm. ku njëkk ñëw rek baax na. ku njëkk a ñëw baax na. waaw baax na léegi looy looy wax fans yi comme yow yaa ngi gisee ak moom loo déggante ak moom xam xam ci lu mu ne looy wax fans yi ñi ñiy toog di xaar. waaw di leen rassurer. Mhm. que ni Modou mhm. rek la bëgg. lépp lu mu am làmba ko ko may. comme tey jii bu ñëwee nekk roi des arènes. wan làmb ginnaaw kon dafa trair làmb wala mu wor làmb. Mhm. te mu du nit kuy wor. Mhm. du nit kuy trahir làmb du nit kuy wor. Mhm. nañ leen xamal ni lu ndaw bëriwul. ren incha allahu. bu gars yi taxawee pour mu loo bëri dina bëri. dina bëri waaw. incha allah parce que tamit euh, Modou Lo bëri moo ko gënal lépp lu mu am. lépp lu mu am ci àdduna bëri moo ko gënal. ko gënal waaw mm-hmm. Abdou Ndour tamit xam nga mënuñu toog fii ba jóge fi te duñu sant ñi nga xam ne. diñ jàppale ci àdduna bi xam nga àdduna moom boo fi nekkee nga nekk jeune il faut nga am ñu lay wéeru ñu lay teg loxo. ku ci mel ni suma yaay suma mama bopp. Mm-hmm. muy soxna Ngone Fall. Mm-hmm. madame Lo. foofu sax laa waroon njëkkee. kooku suma yaay bopp la. kooku. mënuma toog sax di wax ci moom. Mm-hmm. ku ci mel ni góor gi si Dieng. Mm-hmm. ku ci mel ni sëriñ abi Abibou Dem. Mm-hmm. Mm. ku ci mel ni tamit suñu xalifa famille. muy suma papa muy suñu xalifa di suma xarit di suma lépp. muy xaadim Samba. waaw xaadim Samba men. non non xaadim ah, la tudd quoi xaadim ah, Samba suma papa la su suñu xalifa mooy suñu xalifa famille. d'accord ginnaaw gisatuma baay te moom mooy suma baay mooy suma lépp. waaw dama koy ñaanal yen bi diis na torop waaye yàlla na oyof toll toll toll ci kawam mhm. di ñaanal waa làmb ji mhm. làmb yi des yëpp yàlla nañ ko àggali ak seen sago accident bi am ñu ngi jaale képp ku nga xam ne am nga ci mbokk parce que Sénégal Sénégal la ñun ñëpp am nañ ci mbokk parce que sénégalais bu ci dee rek mhm. ñun ñoo ñàkk Gambie ñàkkul France ñàkkul kenn hmm. ñàkkul ñun Sénégal ñoo ñàkk suñuy doomi réew di leen jaale fa jëm yàlla na leen gënal fi ñu jóge yàlla na suuf oyof seen kaw yàlla bu ñu dajal dara lu ñuy ragal ci bàmmeel incha allah te njaboot gi ñu fi bàyyi yàlla na ci yàlla teg loxo bu baax a baax a baax a baax ci darajey Seydina Muhammad amiin amiin waaw di jaalewaat bu baax sénégalais yëpp incha allah sénégalais yëpp hmm, hmm. yëpp di leen jaale ndog-ndog bi nga xam ne moo daal suñu kaw bu yàggul dara. Mm-hmm. waaw jërëjëf. rafet na merci Serigne jërëjëf merci merci beaucoup.